juróom-ñaari waxtu ci ngoonu xibaaru marax yi li ci gën a fës tane na mu ko jukki coowal ngor nag wéy di am ba léegi bu fekkee mer ba ci ndaje bi nga xamante ne amoon na ko ak njiitu réew mi Macky Sall moom nag rafetlu na bu baax a baax ñetti junne mètre carré yi waaye askan bi nag daal di daal di rek ba tëj si naaj bi ñoom naka li leen soxal nee nañ suuf si yëpp lañ mooy seen moomeel te dañ leen ko war a jox dinañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ci biir xibaar yi. leneen ci ay ponk Barthélemy Dias génnaat rek di wax ci woote bi nga xamante ni woote waxtaan bu njiitu réew mi Macky sàkku rek moom maire bu Ndakaaru di xam na ne waa taxawu Sénégal dinañ wuy ji boobulee woote te di sax di xam ne ne Yewwi Askan Wi nekkul ab mouvement de soutien wala leneen lu ni mel di ngeen déglu Barthélemy Dias ci biir xibaar yi ci jooju jamono Aïda Mbodj di njiital alliance nationale pour la démocratie ànd saxal liggéey moom nag mu ngi xam ne ne boobu waxtaan ñoom duñ fa teew moom nag mu ngi wax rek fii ak ay fan yu néew dinañ amal ab congrès d'investiture jëm ci élection présidentielle atum 2024 ci sigi cior mom ciowal politique bi dafa daldi dem rek ba la le njang mi ak njangale mi ginnaw condamnation procès en appel bu Ousmane Sonko Mambay Nia ndaw yi nak dañu daldi rek djubali ci bureau bu comptable des matières bu lycée Jinya bobu sigi cior ba tax Cheikh Fay di inspecteur académique bu sigi cior ye yab ci li ni mel mbok yi li lepp ab teunk la bu ngeen taxawlo touti ñu faram faccé benn doomu aadama ñàkk bakkanam ca ngor ci ay jàppante yu amoon diggante waa gox ba ak takk der yi daanaka yooyu jàppante dañ ko daal di dabbaliwaat ndaxte ci bi nga xamante ni lañuy ñuy waaj korite rek la ñu doon amal ay jàppante seen diggante li waral yooyu lay jàppante nag mooy waa gox bu ngor dañ ne rek ak dee ab brigade bu gendarmerie duñ ko amal juróom benn junney mètre carré yooyu ñu ko fa nara def ñoom nag li ñuy sàkk mooy ñu defal leen fa ab lycée Ngor nag ni ki démb ay jàppante yu metti ñoo fa amoon ba tax tey ci àllarba ji ku fa dem ci suba gi nag di fa gis yooyu lay jeexantalu jàppante diggante takk dari ak waa gox ba fa. njiitu réew mi Macky Sall moomu démb ci guddi daan dalal ñi nga xamante ni ñooy kilifa yu ngor ngir rekk saafara boobu leen mbir ci seen weccantey xalaat rek njiitu réew mi Macky Sall daal dina rek fas yéene jël lu toll ci ñetti junne ci mètre carré ya nga xamante ni mooy genn wàllu suuf san doon xëccoo ab stade ak bu lycée lañ fa fas yéene def ci ndimbalu état bu senegal ñu déglu kàddu yi maire ba di Magaye Ndiaye. dañuy tàmbali ci sant yàlla bu baax julli ci yonentam bi euh, di di ko gërëm moom le chef de l'état qui a voulu nous recevoir ci ci diggante bu xat wax dëgg yàlla waaye loolu dañ ko ciy sant day day dugg rek.

pour jàmm dellu waat pour que population yi mën a nekk ci li nga xam ne mooy euh, li ñu li li ñëpp bëgg mooy jàmm réew mi jàmm ngor waaye jàmm ndakaaru ak jàmm jàmm àddina bi yëpp euh, ñu koy sant itam ci ci diligence bi ndax euh, def na lu lu am solo mooy ne en tant que kilifa ku njaboota ñëpp bu bu réeroo amee ci njaboot gi nga dajale waat njaboot gi yëpp xool la nga xam ne moo indi réeroo bi wut wut saafara def na ko def na ko tey woo nañu ndax démb ba ñu amee réunion bu ñu jógee am euh, ay propositions yu fa amone am ñenn ci askan bi ñu ko ñu koy rafetlul waaye itam ci ëpp itam ñu gis ne am na leneen lu ca nekk sax loo xam ne du du askan bi waaye loolu lépp dañ koy sant yàlla la mu ci décidé tey mooy ba ñu ñëwee mu xool jàngat gis ne euh, lii de xalaat na ni moo andi woon jafe-jafe bi ci saasa ci solution ne lii moom laa décidé pour corriger ndax espace bi dafa toll woon ci 6000 mètres carrés un peu plus de 6000 mètres carrés ba ñu démb la ñu jëloon démb mooy dafa am ñu ëppale tuuti ña ca des amaana loolu moo indi fitna bi mu ne léegi ci kilifa comme maa njaboote ñëpp ma xaaj ko ci digg bi jox waa Ngor euh, moitié bi jox euh, gendarmerie itam moitié bi pour que ñëpp mën a mën a nekk ci jàmm loolu nag dañ ko ciy sant bu baax a baax a baax ndax loolu rek la ñuy xaar kilifa mooy bu jafe-jafe amee vraiment nga taxawu taxawu njaboot yëpp bu baax a baax ci loolu. ah jëlee nañ ci itam euh, mbégte mu rëy ndax au-delà de mbir moomu. Euh, ci compense yi fexe na ba def li nga xam ne lépp dañ ko ko sàkk dañ ko sàkkoon ci moom ne ko lii de bëgg nañ ko pour dimbali askan bi seen taxawaay gën a ñoŋ mu taxaw ci taxawaay yu rëy ndax euh, décidé na stade bi nga xam ne moo ne Ngor muy stade communal bu Ngor xam ne amul newuloon ci turu Ngor mu jël décision ne loolu dinaa ko jël def ko ci turu waa Ngor delloo ko waa Ngor euh, lycée ba nga xam ne moom yàgg nañ ko jàmbat itam di ko wax mu jël décision ne diñ jox nañ le suuf si moitié boobu mën nañ fa def euh, lycée bi waaye li ko gënaloon sax mooy ca stade stade bu espace bu gën a rëy lu toll ci 5000 mètres carrés mu tabax fa lycée boo xam ne lycée bu mucc ayib la bu moderne la waaye bu mag lay doon te loolu moom moo koy c'est l'État qui va qui va construire sur fonds propres et ci la profité sax ñaan ko bu dee mën naa nekk moom mu ñëwal boppam def pose première pierre bi ndax loolu c'est historique bi ñu génnee ci boobule audience rek euh, maire ba daal dina yëkkati ay kàddu ngir ñaan jàmm dellu siwaat ca boobule gox Maguette Ndiaye moom mi ngi xam ne na nag euh, askan wi war nañoo def seen kéemtalaay kàttan ngir jàmm sax ci boobule commune bu Ngor ñu teewlu ay kàddoom. am na lu ñu dégg sànq loo xam ne ci aw nit bu jóg di di di woo waa Ngor di woo ñeneen ñu dul waa Ngor pour ñu daje fa suba. ngir ay fitna ñuy wax ne na ñëpp am fulla ak fayda yu taxaw ak responsabilité di wax ne ñun ngor jàmm kese lañ fa bëgg wow ñu kenn mu fay ñëw duñu fa andil fitna képp ku fay ñëw boo ñu mënee indil jàmm moo ñu gënal ndax ñun ngor jàmm lañ bëgg ndakaaru jàmm lañu bëgg réew mi jàmm lañ bëgg dinañ continuer nag communiquer ak jeunes yi ak jigéen ñi ñoom ñëpp wax leen ni leen fu waay mën a am accès de pour accès pour communiquer dem fa communiquer wax ñëpp ne leen ku fiy ñëw ne fi andi jàmm ko amul jàmm joo fa andi nga toog sa kër ndax ñun jàmm la ñu bëgg sunu dëkk jàmm la ñu bëgg ci réew mi jàmm la ñu bëgg ci ci ci Ndakaaru loolu ñu ngi ciy sant yàlla dinañ continuer également à mettre en place des actions yoo xam ne day consolider jàmm ci dëkk boobu waaye également mobiliser les jeunes à participer à la construction nationale ñoom ñëpp ñu xam ne ci réew mi lañ bokk kenn beddiwu leen ci réew mi lañu bokk dañ ci am cër te itam wa rew mi itam xam nañ ñoom am nañ ci seen ñu joxante ca ànd ci ñun ñëpp góor góorlu ngir jàmmadellu waat ci ci ngor ak ci ndakaar ak ci rew mi yëpp tay nak ginnaw jappante yi amone demb digante tak der yi ak wa ngor yenn ci askan wi nak sen ay xar kanam nga ci gis yenn jeexental yu amone ci yoy lay jappante ñom ñuy joxagn baramu tuma gendarme ñoom ñi le sax di xam ne ne d'accorduñ benn yoon si séddale bi nga xamante nii njiitu yi def na ko li leen jiital rek mooy ñu jox leen suuf si lépp bi nga xamante ni seen moomeel la reportage Cheikh Tidiane am Emmanuel Sarr. ci yoon bi jóge Yoff jàpp Ngor askan wi génn nañu di amal seetlu yàqu-yàqu yi fa amoon li ko waral mooy jàmmarloo bi amoon diggante takk der yi ak ndaw yi. wax dëgg yàlla am nañu métti ndaxte li ñu mujjee def nii buñ ko defoon bu njëkk li yëpp du ci yàpp

occupé pour say doomi dëkk mën a xam fu mën a jàngee. Le Baron di ab restaurant wu yi bërëb bu yànji la woon teg ci bakkane ci ni mbindoo ay kilifa yu mag daan nañ fa teew ci ayu bés bi dafa yàqu yaxeet ndax tàkk-tàkk lacrymogène yi ba tax na kenn mënutu faa dem. bagage bi yëpp yàqu na amoon na benn escritoire bu trois ak firgo yu bëri ci biir waañ bi yàqu na suñu fuur pizza bi tamit yàqu na bagage yëpp dara desul lépp lépp lépp yàqu. Baron mooy suñ suturlu ñun ñëpp ci la ñuy nga xëy tey ñu taaral sànni la ci ay lacrymogène taaral la ko nii bàyyi la ko nii léegi lii looy wax looy wax. jël ay lacrymogène li ko sànni si biir kër lacrymogène du pour kër. lii policiers yi ñoo ko taal état bi ñoo taal lii. am ndaje bu guddee lool amoon na ca makkaanu jiitu réew mi doxoon ci diggante gouvernement bi ak meeru Yoff bi àndoon ak ñenn ci kuréelu ngor suñu gox waxtaan bi jur na ab dogal bu am solo ba yegg ci mën a andiwaat jàmm. daanaka manifestation yu am rek askan wi moo si gën a loru bu si ay nit ñàkkul seen bakkan ay matériel yu bëri nak daal di si naax saay ñu si mel ni famille sàmm nga xam ne gëj nañoo dund ak xel mu dal ay at a ngi nii ñoom dénk nañ seeni kàddu suñu ay reporter Astou Baldé Emmanuel Sarr mu nekk jëfin ju ñaaw lacrymogène yi di rot si néegu jàmbur yi saa su manifestation amee si diwaanu Ngor famille Sambou bi di naqarlu ak a métitlu seen coono ak seenu ñàkk nelaw si fan yii yëpp. wax dëgg yàlla sonn nañ torop ndax lii keroog bi muy daanu fekkuma fi sax marché la ma fekk après lañ ma oo ma ñëw mais xale yëpp dañoo sonnoon man tamit njëkkoon nañ ma ko def fekk ma jaaye ji keroog sama bagage yëpp dafa daanu. gars dañuy xeex ak policiers yi mais bu ñuy xeexee dañuy daw dugg si kër gi léegi bu ñu dawee gars yi ñuy sànni foofu mhm, loolu mooy andi dégâts matériels yi di am tout ñàkkum kaaraange rawatina saa su manifestation amee ci diwaanu Ngor ak Yoff démb ba 3 heures du matin nelawuñu parce que kër gi yëpp dafa am gaz xale yi dañu obligé daw ak sama yaay ñëpp ma dugal leen sama nekk euh, tëj bunt bi si biir pour que ñu mën a kii ba 3 heures du matin moo tax tey jàngi jiw ñu ñu ni taxaw. maa ngi entré woon si clinique bi euh, dama génn juste ñëw ma ne comme euh, bu la perfusion yi jàppee foog nga nelaw ma ñëw ma ne xaaral ma nelaw tuuti. Euh, dama dugg tëdd rek tuuti mu dégg xale yi di yuuxu si kër gi. bi may ñëw fii dama xamoon presque gisuma ndax sonn wax dëgg yàlla waaye metti na torop daal. ah bi sa sañoon kay laay maxtaar mu jeex ndax xam nga jaboot lu dal ci kawam rek metti na waaw surtout nga yor ay xale ñëpp la metti ko wax ak ko waxul metti na. doxum ñaxtu doon na ab mbir bu ñuy faral di nemmeeku fii ci Sénégal te looloo jur yenn saay ay ñàkkum déggoo ci fànnu yépp te saa yu tit ak njaxare lañu bari di yeewoo xeex gi am ci langu politique bi jàll ba ci njàng mi ak njàngale ay doomu aadama yu doon wone seen mettit ginnaaw bi ñu condamné Ousmane Sonko ñoo daal di rek jubali bureau comptable bu matière bu lycée Djignabo ca Ziguinchor yooyu les incendie nag daal di tax ba ñu daal di dakkalu cours yi yi la image sax mën a choqué ñenn ñi Cheikh fay mooy inspecteur d'académie bu Ziguinchor demoon na ca boobule lycée ñu teewlu ay kàddoom ci micro Mame yi amna ay euh, jéego yu am solo yo xam ne euh, dox nañ ko fu bunt bu nek fëgg nañ fa démarche bu nek def nañ ko pour euh, lycée Djignabo ñu réhabiliter ko ñi ñi ñi ñi ñi ma ma suivre xam nañ ne en 2020 ma egsee sama premier programme mo nekkoon réhabilitation lycée Djignabo alors tay ñu jékki-jékki ay xalé ay ay ay jeunes xaw fuñu joggé ñew taal pratiquement une marche euh, une partie des de de de de, du bloc administratif surtout partie bi nga xam ne moo ëpp solo ci école bi mooy intendance bi nga xamante ne consommable matériel yeeg foofu lañ ko def. tey nii ci constat bi gis ngeen ko lépp lu ñu amoon ci consommable euh, euh, tàkk na jippet donc ñuy wax rek ne ñu ngi koy ñaawlu di wo nit ñi ci walu buñ ñu fété man ñi leen di ñaan vraiment ñu ñu ñu épargner école bi ci trouble yi nga xamné ñoy am. Euh, temps yi parce que école ak walu ker docteur ñaari pilier yo xamantene euh, yu am solo la ci ci développement dekk motax lepp lo xamantene mën nañ ko am ci ay problème aussi war nañ taxaw tem pour que école bi bañ ci bañ bañ ci am ay problème euh dañuy ñaan ñepp ñu ci mëna japp euh vraiment ñu lekkolo pour jappelé wat Euh, lycée d'Ignabou pour que dégâts gars yem fii parce que les ñu ci consommable yëpp jeex doit école continuer parce que ñu ngi ci dernier virage pour examen scolaire parti bi di alliance nationale pour la démocratie ànd saxar liggéey bu Aïda Mbodj ca bopp ba ñoom nag gàntal nañu woote bi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall woote na ko mu jëm ci wàllu mu waxtaan ñoom ñi nga xam ne xamuñu lan moo undu bile waxtaan ba tax duñ fa teg seen tànk ñoom nag ñu ngi feddali seen bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ak F24 bi nga xamante ni taxawal nañ ko bu yàggul dara ñoom nag ñu ngi xam ne ne fii ak dinañ amal ab congrès d'investiture jëm élection mi ñu amal 2024 ñu parti ci micro Mansali. présidente parti alliance nationale pour la démocratie saxal liggéey du bokk dialogue politique bi nga xamante ne njiitu mi mi classe politique. jam ñu ko ci suñu xol ba pare daal di ni ñu ëmb leen seen xol bu mu wadd jël leen seeni serviette fomp leen seen deret ñëw leen dialogue ak man ah bu boobaa dina raw la tubaab ba defoon pes ñu ci ñu ko bi ci des mënuñoo dialogue ak moom parce que ñun waxuñu lan la ñuy dialogue te dafa nekk ci position boo xam ni moom buñ ko séenee dañuy jëkkalàq suñuy doom

mu jaral ñu lu nekk nag lim ñu jaral moo tax luñ ci naqari kenn du ko dégg man mësuma leen a convoqué ne leen kaay leen ma wax leen difficulté bi ma am yeewi askan wi pourtant am naa ko de mësuma leen woo ne leen lii moom a naqari ci yeewi askan wi xanaa takku ba dëggal ku tudd yeewi askan wi man la du fi amee ci élection présidentielle 2024 parti bilier di nationale pour la démocratie ànd di bu congrès d'investiture waaye ñun ki ñu nekkal le président Macky Sall defuñu nawle lan moo tax ñu war ñoo grand théâtre heure bu ko mu ay sabar grand théâtre ak ay militant waa lan nous tax ñun grand théâtre waruñu faa am droit bu caaxaan jeexee dëgg des mu amuma ay conférence de presse pour wax congrès pour wax candidature de non non non non non non te dinañ ko def nag rassurer militants yi manifestation pacifique yi nga maintenu société civile ak coalition yéwi Askan nam amal ci fukki ak ñaar ak fukki ak madame aydam di population bu Sénégal ñi daal mobiliser bu amal mobilisation bu ngir démocratie sénégalaise ci bile jakarlo bu mu amal ak taskatu xibaar yi moom ay dëmbooju mu ngi wone jàppandala ak ousmane sonko bi nga xamante ni kenn la ci ñoom ci biir coalition yewi askan wi ay dëmbooj di wone njàppandalam jëm ci njiital pastef mi nga xamante nak dañ ko daan bu yàggul dara juróom benn weer kaso yum dul tëdd ay dëmbooj la ñuy teewlu ay kàddoom ba léegi ci micro ibrahima mansali emmanuel sar parce que ousmane sonko

tuuma niñ ko weddelee woon sama tudandoo ay gor rek ñoo mën a wóolonte te gëm yàlla nak. parce que ci kanamu kiñ koy weddi dafa bari doole lool ñu gëm yàlla rek xam nit te sëriñ ba dañu woon boo àndeeg nit na nga ko mokkal ni nga mokkale faate xam nit mën koo weddi loo xam tuuma la ju ko topp te nar koo gàllankoor ñuy dem te booba temps nag wax dëgg yàlla ñi mënoon loolu bariwuñu mois de février bi nga xamee nit ñi jëkk nañu daje kër Ousmane Sonko am na koo xam ne moo ñëw song ko ni ko lii daje sa kër su ma ko amoon mu ne mbaa mun ko Macky Sall du fa fanaante tey Ousmane Sonko ni ko loolu taxu maa jóg ndax man ñooñu yëkkatiwuma leen te foofu laay waree woowee les sénégalais d'ici et d'ailleurs damay wax sénégalais yi ne la xewoon mois de mars 2021 yéen a ko réglé lii di raam aussi bëgg a jën ci ñag bi yéen a ko fay génne na sénégalais yi jël seen responsabilité ma tudd léegi en français m mouvement pour la défense de la démocratie C'est mon frère Cheikh Tidiane qui l'a mais démocrate parce que je suis politique mais mouvement yi nga les politiques et la société civile daf ma parce que au Sénégal le sénégalais dafa une démocratie ak liberté dans l'âme sénégalais veut une démocratie parce que nous, lan un petit pays à grande démocratie La démocratie si vous voulez bëgg duñ ko nangu dañuy taxaw nekk bouclier te loolu laay woo sénégalais yi dama ne sénégalais yi yéen a taxawoon ba effectivement libérer la démocratie yéen a taxawoon ba sauver la démocratie yéen a taxawoon ba aar la démocratie noonu ngeen war a taxawaat parce que am na lu xew lundi te loolu xew lundi muy le balaa le balaa le seize war ngeen koo aar balaa le seize war ngeen a artu balaa le 16 war ngeen a taxaw ba lii ñu bëgg a def du mën a def parce que dara xewagul Barthélemy Diaz di merbu Dakaru naka noonu bokk ci taxawu Sénégal mom nak genn na di wax rek ne dara du leen tey wuy ji ci wote waxtaan bi njitu réew mi Macky Sall da di wote rek jëm ci lebe ci langum politique bi mom sax mu ngi ne yewi Askan Wi kenn xamatul lu muy ndax ndaxte dafa mel ni jamono ji ab mouvement de soutien le gën nirol nirool te ñoom duñu nangu benn yoon ñu len di divertir Barthélemy Diaz la ñuy teewlu ay kàddoom. la nuit des temps ñu ci ben élection.

parce que coalition y Askan eu commencé di Nous mouvement de soutien Nous sommes groupement de soutien Nous bureau de de de de de de consultation pour qui que ce soit Mais je dis l'air. D'abord, je yi dama que ay man tontu Sénégalais xam 2005 ba man ci politique 18 ans maa ci politique kenn musuma dégg ci ay man suis ñoma jur labbe ñoma yalla man kenn musuma xamé ci ay tiaxan ba nit di dem ba taxaw askanu Sénégal di wax ay waxu ay enregistrement di wax ay waxu ay théâtre que théâtre yi man dama ci rôle bu joué fi kenn rek théâtre kenn rek théâtre di manipuler askan coalition di jëm nelawal nit ñi di jëm a lëndëmal xel yi ndax lan ndax bëgg-bëggam dama ne ah, mbokk yi man kilifa la man bàmmeelu biir dañ may yar ci bàmmeelu biir man parti socialiste laa laa laa yaroo parti socialiste laa bàyyeekoo am na lu ngeen xam ne du suma cër man mënuma ànd ak nit di ko xeexal man ba may taxaw ne kii mooy suma candidat su ñu wax ci leneen di ab projet buy suqali koom bu Casamance ñoom nag ñoo daal di ñëw rek ngir dooleel collectivité territoriale ba ci ab enveloppe bu toll ci quatre-vingt-onze millions huit cent koppar yooyu nag ci diiru ñeenti at yi nga xamante ni moom la ñu dëgmal dañ ko nar a jagleel rek wàllum formation des élus ak investissement ci wàllum infrastructure ak gungeen ñi nga xamante ñoo di population bi ngir ñu suqali seen ay projet Youssouf Badji di coordonnateur projet bu développement économique bu Casamance la ñuy teewlu ay kàddoom ci micro suñu naataango ba fa di maam Ndiaye. waaw projet pilote bi dafa nekkoon. ci biir PPDC dafa amoon lu ñu tuddee projet d' engagement citoyen projet pilote d' engagement citoyen li ko taxoon a jóg moom mooy fexe euh, ba nit ñi gox bu ñu mën di nekk ñu sentir seen bopp ci que ni développement collectivité territoriale bi du affaire maire bi rek maanaam boo nekkee jeune nekk ci collectivité wala nga bokk ci commune am na loo war a mën a defal collectivité territoriale du ma wax sax defal collectivité territoriale maanaam ma naan defal ko sa communauté ndax ci ci nga bokk li nga bokk nag waroo xaar ñu lay woo loolu moom moo waral programme d' engagement citoyen mais dafa nekk loo xamante ni bu ci bare c' parce que nit ñi tàggatuñ leen si parce que nit ñi jàpp nañ ni il faut ñu woo leen pour ñu ñëw donc yii nga xamante ni moom moo daan tënk nit ñi jeunes yi jigéen ñi ba nga xam ni du ñu sawar ci ñëw loolu lañ saytu bëgg koo dindi ci ñoom nga xam ne loo bokk doo xaar ba ñu woola léegi nag loolu dafa am ay démarche ay mécanisme yoo xam ni moom la ñuy indi suñu ko indee nit ñi dem ba tàmm ko dañ koy defal seen bopp beaucoup plus facilement moom mooy tax euh, soo nekkee su dara xewee da nga naan da ngay dem ne ah man de dégg naa lii a ngi fi est-ce que noonu la demee nan lañ ci mën a bokkee beneen attitude bi mooy nga ni ah man de yëguma woon même bu fekkee ki wax bokk na ci mais nga ne yëguma te loolu dañ ko xaw a jikkoo ñun sénégalais te muy nekk loo xam ni man su ma nee bokkuma wala su ma nee yëguma moo tax du ma ci def suma doole duma ma ñëw samay xarit du ñu ñëw samay àndadoo du ñu ñëw maanaam ñi nga xamante ni su ma xëyee mën nañ ma jàppale du ñu ñëw donc loolu jàpp nañ ni perte la ci collectivité territoriale moo tax programme d' engagement citoyen loolu lay jariñ fexe ba fu nit ñi nekk ñu mën a seen contribution ñoom ci développement collectivité sans que ñu xool ba xam ndax ki fi nekk maire bi moom lañ àndal wala àndaluñu ko wala ñi ma àndal man neexuñ ma mais danga koy def parce que ci gox bi nga bokk parce que sa dund boo fi jógee war nga mën a wax ni réew bu Sénégal nag démb am na taw yu njëkk yu wàcc ci jaww ji dal ci Koungheul ak fi nga xamante ni moo di bët mu réew mi yu si mel ni Sédhiou bu ñu sukkandikoo ci agence nationale de l' aviation civile et de météorologie nag moom daal woon na xam ne ne réew bu Sénégal atum ren dina am ay taw yu teel doore ko ci mois de mais bi ñu nekk boobulee taw yu tel yooyu nag bu ñu sukkandikoo ci ANACIM nekk na lu baax lool ci ñi nga xamante ni ñoo di baykat yi ANACIM sax mu ngi xam ba léegi ne dina fexe ba li nga xamante ni moo di baykat yi di jot information ci nu mu gën ngir seen ag récolte mën a mucc ayib. mu amoon ca atum 1994 boobu ba léegi def na ñaar fukk ak juróom at ci ren waaye génocide bu Rwanda doxan ci diggante Tutsi ak Hutu yi wéy di nekk actualité li ko waral nag mooy lim ba nga xamante ne nii moom la ñu wax ne rek moo officiel toll ci juróom-ñetti téeméeri junney doomu aadama yu fa ñàkk seen bakkan boobu boobule lim ngi wéy di indi ay jeexi jaaxal li ko waral nag mooy ab découverte bu yees la ñu def ca bët saalumu réew ma ca village bu ñuy wax Mibirizi foofu lu ëpp junne ak téeméeri néew nag lañ fa daal di gis. résultat ya tukkee ca saytu ba rek dafa daal di xam ne ne boobule découverte mooy bi gën a mag depuis ci atu 2020 ba léegi génocide bu Rwanda nag moo nekk bi gën a mag ci réew bu Afrique bi nga xamante ni doxoon na diggante Tutsi ak Hutu yi nekk ca boobule réew leneen ci ay xibaar ab reporter bu fare ca presse française moo ñàkk bakkanam ginnaaw ay bombardement bu am ca réew bu Ukraine Arman Soldin di ab coordonnateur vidéo agence française bu presse ca réew bu Ukraine moom nag la ñu boom démb ci ay théâtre d'opération yu am ca gox bu ñu naan ca Sivlar fu soriwul dara Bakhmout bile taskatu xibaar mu ngi àndoon ak ñeent ci ay ñoñam ak ay militaire ukrainien bi mbir moomu di am agence France Presse nag moom daal dina réagir jaarale ko ci ki nga xamante ni moo di président directeur général ba di Fabrice Fiares moom nag mu ngi xam ne nag wala sax di fàttali risques yi nga xamante ni ak danger yi nga xamante ni moom la ñuy taskatu xibaar yi di jànkonteel bés bu yàlla sàkk ci wëy xibaar ñuy amal ca réew bu ukraine moom nag mi nga xamante ni moo ñàkk ba kanam ay atam toll woon ci fanweer ak ñaar arman soldin nekkoon na ab reporter dimage bu xarañoon loolu judd ca sarajevo nekk ca bosnie herzegovine moom nag ab nationalité française la tàggat yaram lañ koy jeexalee gendo yu sénégal yi seen at yees fukk ak juróom ñaar nag daal di am ndam ci quart de final bi nga xamante sen seen digg ak afrique du sud la woon juróomi bal ci daral sénégal daal di door nag afrique du sud muy ndam la nga xamante ni dina tax ñu jàll ci demi final ya waaye nak noonu qualifié ci coupe du monde bi war am ci yooyu les catégories boobu les coupe du monde nag ñu war ko amal 10 novembre jàpp 2 décembre 2023 ci boobule compétition ndam lu rëy li nga xamante ni Sénégal am na ko Amara Diouf daal di si dugal ñaari bi yu mujj moom sax moo jëlagum meilleur buteur ci boobule compétition ci juróomi réalisation yi nga xamante ni jot na amal.